asalaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës ku ci li si nar a gën a fës lu jëm ci wàlluk njàng beeg njàngale bi njiitu réew mi président de la république Macky Sall daal dina sàkku ne nag ci fësal yéeneem ne dañuy yokk li nga xamante ne moom mooy inspecteur d' éducation yi li nu mel rek ngir daal di andi njàngale mu mucc ayib ci mbir rawatina jaarale ko ci xarala yu yees yi loole moo ko daal di xamle niki tey jii. ginnaaw bu ñuy amal li lee di euh, li lee di nga xamante ne moom mooy euh, programme d'analyse de systèmes éducatifs maanaam PASEC atum 2019 te yëpp euh, njiitu jëwriñ ya nga xamante ne ñoo nekk ci éducation ak nguur ya nga xamante ne ñoo bokk ci francophonie niki tey ji la ko daal di xamle loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lu jëm ci wàllub blocage bi ñu def ci doomu gerte yi ngir rek ñu daal di ko yóbbu ca biti réew liggéey nag rawatina ña nga xamante ne ñoom ñooy jaay ay restaurant foofee ca Kaolack ci ba Taïba seen ay jafe-jafe lañ ci am ndaxte gis nañu nag lépp lu jëm ci seen wàllub liggéey te ñu aju woon fànn boobee dafa tega témbe dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. émissaire désertoir bi nga xamante ne moom moo nekk ca xonjom moo doon sotti ay ndox ya nga xamante ne dafa ànd ak tooke loolee nag daal dinañ ko toxal askan wa daal di ko rafetlu li ni mel moo ngi amoon ci teewaay Abdou Karim mi nga xamante ne nag dafa demoon daal di nemmeeku ji lakk ji am foofee ca nooto ginnaaw ba tee nëpp gaz ba daal di fa tàkkee ni ki euh, démb wala boog barki démb loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boolee yeneen xeetu xibaar jeexale ko lii la di contradictoire ànd ceeg suñu ñaari gan ñuy àddu ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu pour dakkal gi ñu fa yéene amal lii la di ville di suppression yi jeexale ko wax sa xalaat bokk na ci mbas mi accord de pêche yi ak yi tollul euh, wala boog teenub gaz boobee nga xamante ne daal dina tàkk foofee ca nooto guy jamaan ñàkk kaaraange ak it lu jëm ci fànn boobe ci 88 lay doon 628 98 98 bi ti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye moo féete ci xarale sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 te nekk altine yemboog ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yi ñu doore ko ni leen ko waxee ci njàng beeg njàngale bi niki tey ji njiitu réew mi daal dina fësal ne nag mbëbëtam bokk na ci ñu daal di yokk limu inspecteur d'éducation yi loole niki at gile ndaxte gis nañ ne nag lu jëm ci wàllu rapport international programme d'analyse système éducatif yu nekk ca Confomen niki atum 19 ñoom ñoo ko daal di xamle moom njiitu réew mi nag mbëbëtam daal dina ko fësal loole ndaxte gis nañ ne nag loole dina indi coppite gu am solo ci wàllu njàng beeg njàngale mi rawatina li ko dalee nekk atu ren ji moo ko gën a dëggal moom président de la république Macky Sall di ngeen ko teelu ci suñu xibaaru français yi ci booba ndaje naka kile euh, daal di xayma njàng beeg njàngale bi rawatina ci réew yu ak gouvernement yu nekk yu bokk di làkk français ñoom nag gis nañ ne donte ne sax am na ay jéego ñu ci def wante des na lu bëri ya nga xamante ne dañ ko war a daal di andi ay coppite bokk na ci lu ñu duppe inclusion numérique ci wàllub njàng beeg njàngale bi. maanaam xarale lu yees yi ñu daldi ko boole ci njàng beeg njàngale bi aji faatu bari. gannaaw ñeenti at yoo xamante ne dañ doon xool njàng mi ni mu demee ci fukki dëkk ak ñeent yu Afrique yoo xamante ne français la ñuy làkk rapport bi nga xamante ne waa Confemen ñoo ko def daal nañ ko génnee tey bile rapport nag wane na li ñuy woowee science ñu ngi koy gën a jëmmal fii ci Afrique. yamuñu ci ndaxte gannaaw ndongo yi eh, seen i jàngalekat wala sax directeur yi seeni i école daan nañ leen boole eh, ci bile étude Sénégal bokk ci fukk ak ñeenti réew yi nga xamante ne ñu ngi fi doon amal yooyu la gëstu li ñu gis nag moo di am na ay yokkute ci wàllu njàng mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla. 2010 2014 ak 2019 ñoo ngi wax ne que résultats yi ñu ngi jóg war nañu nag continuer nag di seet nan la ñu war a def pour formation yi ñu def si suñu école yi ñu orienté ko si li wax ne wàllu science soo waxee science nag da ngay wax mathématique da ngay wax SVT da ngay wax science physique donc loolu mooy la nouveauté beneen nouveauté bi mooy que xam nañ ne léegi mënoo def dara te numérique àndu si te ñun nag wax dëgg yàlla ñu ngi si si ministère bi dèjà dañu am lu ñuy wax ne seen ressource moo tax sax ñu dem ba am suñu kanaan éducation am ay plateforme yu bëri loolu sax moo ñu dimbali bii mbas mi ñëwee bu ñu toogee fii ñu ne léegi continuité pédagogique de forum numérique moo ñu si dimbali. ci bi ñuy joxe li jugee ci bile rapport itam ñu ngi doon màggal juróom benn fukki at li di Confamen ñu joxante di daje fii ak ñeenti at ci atum 2024 ngir xoolaat njàng mi nu mu demee fii ci Afrique. ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci loraange ya nga xamante ne ruusee na ci blocage bu ñu daal di def ci doomu gerte yu ñu fa yéene woon a yóbbu ca biti réew loolee nag daal dina andi euh, njeexital gu am solo rawatina gàllankoor liggéeykat njigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo daal di yor ay passion foofee ca tey ba ñaseen nekk ca département bu Nioro loolee nag lu ëpp ci seen liggéey fi mu ne nii ay jafe-jafe lañ ciy dundee ndaxte amatuñ leen la nga xamante ne ñoo ngi ko ciy foraatu ba tax ñu daal di waxu wàllu jëmale ko ci njiitu réew mi ngir rek ñu daal di dooraat liggéey gi ni mu gën a gaawee Aminata Thiam yor fa passion moom moo ci àddu ci micro Mamadou Camara. ñun am nañ jafe-jafe dëgg ndax Taïba Niassène. 22 villages. lépp ku xëyaan da ngay bàttale sa añ. joxe sa dépasse ne maa ngi liggéey Taïba seen léegi jigéen ñi bu ñu xëyee ba ñëw sa yaram wi day daw si àll bi. ndax dañuy ñëw tëdd si kër yi liñ daan am amatuñ ko. ndax ñun gerte lañ xam ñun gerte si lañ si lañ juddu si lañ yaru gerte dem na ba si xotti gerte bi nga xam ne moo gën a oyof si gerte ñun moom lañ gën gën a bëgg si gerte jigéen ñaa ngi ni ñëpp taxaw koo fi laaj dëkkut si Taïba Niassène ñi fi taxaw dëkkuñ Taïba Niassène 22 villages yoo xam ne moo wër Taïba Niassène yëpp si Taïba Niassène lañ daan dund fu mu ne nag boo xoolee àll bi da ngay gis ñiy tëdd ñiy taxaw ndax jafe-jafe Macky Sall nañu dimbale ubil ñu buntu yi ngir yàlla ak yonent bi boo gisee suñ doom yi gaatu si dëkk bi di liggéey demuñ si ñamb mi ñuy wax nañu si yàlla musal gerte gi moo taxoon te gerte gi bu dakkee suñ gone yi danañ dem te ñun amuñ duñ suuf lu may suñ gone amuñ lu may suñ gone yi nag Macky Sall lay ñaan nga ubbil ñu lépp loo tëj ci Sénégal euh, ñu liggéey te yàlla tax ndax jigéen jigéen waxuma la jigéen Taïba Niassène rek waaye jigéen 22 village bi ma la wax rek ci Taïba Niassène lañ doon dund waxuma la ñun jigéen Taïba Niassène ñun faale wuñ fu ne góor gu ñu jox dépasse ak góor joxu ñu joxut dépasse benn ci man bisaab laa daan jaay moo xëyee def sama ñetti paani bisaab ñëw jaay kenn xamul kañ laa gëj a jaay benn siwo bisaab jaaykati ndékk yi ñii tëj nañ seen ndékk yi ñii dañuy foraatu ndax am na ñoo xam ne ñoo yore seen bopp si foraatu mi gerte bu gerte tëjoo rek ñu tëju bu gerte ubbeekoo ñu ubbeeku nañu Macky Sall dimbale dimbale jaboot yi jaboot yi ñoo jur doom yi dugg si gaal yi bu fekkee ne tëj na Sénégal tëj réew mi ñun jaboot yi sax danañ dugg si mbënn mi dem ndax jombuñu dañuy wuti rek te suñ tëjal nañu suñ uteekaay si ñuy dem si mbënn mi rek jigéen bu demee ba yore woon kër góoram di dem muy jigéen toog góor toog fu kër ga jëm kii aaw fee fii kër ga tas di kàddu Aminata Thiam mi doon àddu ci turu ñu yor passion foofee ca Taïba Niassène rawatina seen liggéey ya nga xamante ne dafa tagga témbe ginnaaw bu ñu daal di tere lépp lu jëm ci wàllub yóbbu bu doomu gerte yi ca biti réew foofee gis nañ ne nag euh, ñuy yëngu ci wàllu wàllub exportateur yi sénégalais yi nekk foofee dañu am ab njàqare ci doomu gerte ya nga xamante ne nguurub Sénégal di ko daal di bloqué ci seen kàddu jàpp nañ ne nag lañ fa daal di jël ci ay gerte fi mu ne nii lépp ngi commencé yàqu gis nañ itam taux aflatoxine baa ngi gën di yokk saa su ne loolee nag gis nañ ne ñoom ci seen wàllu bopp ay milliards yu bëri lañ ciy daal di ñàkk Mamadou Camara. njënd ak njaayam gerte gi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay gerte mu dem bitim réew ca Chine. mën nañ ne day atum daaw ak ren wuute na ndax ñooñu nga xam ne ñoom ñooy jaay gerte bitim réew jamono ji ci nen lañu toog li ko waral nag mooy boobu ba léegi yóbbuwuñ sax benn doomu gerte jaayi ko chinois yi wala partenaire ya nekk ca bitim réew COPEGA muy kuréel bi boot ñiy jaay gerte bitim réew nee nañ li ñu yàquleegum ci ay milliards bëri na lool te tamit afla aflatoxine bi mi ngi gën a yéeg ci gerte gi nga xam ne ñu ngi ko jël ci angaar yi dafa mel ni yet bu ñu dóor ci ndoddu ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay gerte bitim réew Habib Thiam moom moo jiite COPEGA. naa ne exportateur boo gis rek ma nga denc loo xam ne lu am solo la parce que ñun mënuñ ko évaluer fi mu ne nii tant duggul ci conteneur su duggee ci conteneur ci la ñu mën a réaliser exportation ban niveau la nekk mais li nga xam ne collecté nañ ko exportation yoo dem soo demoon di ngeen xool ci centre de réception yi mu ngi fees dell ak gerte te saako yaa ngi yàqu naaj baa ngi koy tappe mu ngi déprécier wàcc poids bi mu ngi wàcc te su yàggee aflatoxine bi dana yéeg te aflatoxine bi boo xam ne su fa yeggee Chine Chine dootu ko accepté bi loolu muy nekk ay perte loolu nañ ci xalaat te wax ci te lijjanti lii parce que lii suñ ko lijjantul mën naa ni mu nañu jënd nañu ay stock yu bëri ñu ngi ko bàyyi ci naaj bi léegi mu yàqu parce que condition climat yi ni mu demee nii xëy na c'est pas favorable gerte dafay nëb dafay yàqu du loo xam ne da nga koy teg nii rek abat ndaa man loolu ay risques yu ñuy jël te ñun ay sénégalais lañ dañoo liggéey pour mun a am dara di liggéey aussi pour mun a exporter. ñuy fàttali ne Sénégal dafa profité woon pour dugg ci marché chinois bi li ko waraloon nag mooy xaatim bu ñu xaatimoon lu jëm ci wàllub ay digle yoo xam ne defoon nañ ko ñu mun a jaay gerte gi ci bitim réew loolu nag ñu ngi ko xaatimoon ci atum ñaari junni ak fukk ak ñeent muy protocole boo xam ne bi nguuru Sénégal yokkaat na ko pour juróomi at Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ginnaaw coowal gerte boobee ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci. Euh, émissaire bi nga xamante ne dafa doon bàyyi ko ca ICS de une sortie foofee ca xonjo doléance ba nga xamante askan wa saa su ne ñoo ngi ko doon daal di euh, reeteet fi ne nii nag daal di nañ ci amab saafara ndaxte daal di nañ ko toxal ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub alam bi di Abdou Karim euh, Sall loolee nag askan wa fa daal nañ ko rafetlu Babacar Sow. toxal bi nga xamee ni def nañ ko émissaire bi doon yóbbu lu jóge ci ICS askan wi yow xonjo jàpp ni daf leen lor sóoral nañ ko lool di loo xam ne lii askan wi bëgg nañ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 dina ci taxaw Alassane Diallo directeur général ICS di dellu soir ci liggéey bi ñu fi jot amal. monsieur le ministre Abdou Karim Sall ñëw na en juillet nañ déplacé émissaire bi. xëy na tey la yàlla tey lay pare mu ñëw fi xooloo ko boppam. ci diggante bi Covid bi moo bloqué liggéey bi. man ma ñëw wax ko ko mu ne d' accord na. dinañu may délai pour ñu liggéey liggéey jël nañ millions de francs CFA pour defar ay tali ay piste yu bees pour suñu mbokk yi nekk na loo xam ne lii lu jaadu woon la ngir dalal xel waskan wi ni ko njiitu mi président Macky Sall santaane woon ginnaaw bu nga xamee ni am na ay lu ñutu yuñ ci doon def pour seet ndax am na loraange wala déet ni amul benn loraange jëruñ jore wàllum dend gi Abdou Karim Sall délocalisation bi remercier bu baax euh, ICS ginnaaw bu ñu comprendre il était nécessaire ñu délocaliser émissaire bi son excellence le président de la république daf ñu waxoon ñu suivre question bi avec beaucoup d'attention émissaire boobu nekkoon xonjo délocaliser nañ ko sore population yi analyse yi nga xam ne produit yi nga xam ne moom lañ doon déversé ci géej bi amul woon tooke Tivaouane Babacar Sow depuis Xonjo pour Sud FM Babacar Sow dañuy des ak yow jëriñ nga moom ci boppam demoon na nemmeeku ji gaz wala boog teenub gaz boobee nga xamante ne dafa mujj tàkk foofee ca Ngajaga ba néega ni gis nañ ne nag tàkk-tàkk boobee fayaguñ ko jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu alam ak keew gi daal na ci àddu xool ana nees lañ daal di def ba daal di ci Abdou Karim Sall ñu teewlu ko ak Babacar Sow. fi nga xam ne dafa am euh, tàkk-tàkk mu bàyyeekoo ci benn puits depuis si ñaari fan yi ñu génn dañu ñëwoon pour xool impact bi nga xam ne environnement am na ci wàll bi ñu ñëwee nag gis nañu ne gendarmerie mu ngi def euh, liggéey bu am solo dafa quadriller zone bi circonscrire li nga xam ne mooy périmètre de sécurité bi di veiller également au grain pour que population yi bañ a jege si li nga xam ne moom mooy site gis fii aussi les éléments de sapeurs pompiers ak seen i continuer toujours di tàkk loolu nag du situation bi nga xam ne moom la ñu mën a maîtriser ak ndox wala mun ko fay ak euh, sapeur pompier bu doon loolu la fay nañ ko bu yàgg parce que il faut intervenir en amont pour pouvoir arrêter l'arrivée des gaz yi nga xam ne moom mooy tax mu tàkk mun nañu wax ni le fait déjà mu am tàkk-tàkk bi nekk na lu am important parce que bu tàkkul woon dafay mel ni zone bi yëpp dafay am gaz donc zone d'explosion lay nekk donc le fait que muy tàkk donc gaz bi génn dafay tàkk du am benn bi nga xam ne benn flamme bu ciy indi ay yeneen jéeya leneen lii mooy bi ñu interroger léegi techniciens yi nga xam ne moom lañu fi fekk rassuré nañ ñu ne impact bi mënul passé fii donc day continuer di tàkk ba keroog ñu koy arrêté en amont mais li ci am solo mooy jël nañu contact ak experts yi nga xam ne mun nañ leen jox euh, main forte pour que ñu mun leen euh, jàppale naka la ñuy fexee ba arrêté li nga xam ne moom la ñu gis si ginnaaw waaw étude d'impact amoon na xam nga étude d'impact bu amee day de gestion environnementale et bi yor nañ ko xam ne ñoom ñoo yore gestion puits bi pour xool ni est-ce que lépp loo xam ne doon nañ ko def en amont defoon nañ ko mais euh, nous sommes dans les dispositions pour les accompagner pour mieux réussir la gestion li nga xam ne moom mooy puits euh, gaz bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw amul benn tiitaange par rapport au dëkkuwaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii d'ailleurs parce que dañu ñëw fekk zone bi ñu cadré ko ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci yëfu bu koom ADPM di kuréel gi nga xamante ne dafay yëngu ngir rek daal di aar saytu këru liggéeykaay yu ndaw yi ak lile di fonds ZIP du fonds de garantie investissement prioritaire daal di nañ lëkkale seeni doole ngir rek daal di taxawal benn sous-fonds ba nga xamante ne ñoo ngi ko daal di xayma ci ñeenti téeméeri million ak juróom fukk ci suñu koppar loole nag ñu jagleel ko këru liggéeykaay yu nekk ca biti réew demee ni ki France Italie Belgique Espagne projet boobee nag wala boog ngir rek nga daal di ci bokk gën gaa sa projet dina euh, jàpp dina doon lu toll ci juróom jàpp juróom fukki million ci suñu koppar dañuy teewlu kii la di Thérèse Faye Diouf moo nekk administratrice bu FONGIP ci micro Amadou Moustapha Dieng. dañ ci gërëm d'abord suñuy partenaires ñu mel ni waa délégation de l'Union européenne ak ñi nga xam ñoom ñooy waa AFD tey ñu mobiliser benn montant de quatre cent cinquante millions. 350 millions partenaires yi ak ADPM 150 millions yu FONGIP daal di ko mobiliser euh, loolu nag war a jur ay crédits yoo xam ne mën na dem ba un milliard ñu jagleel ko sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk euh, itali Belgique France ak fi nga xamante ne moom mooy euh, Espagne lu tax nag loolu parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy AFD ci gunge bi nga xam ne ci la ñu gunge gouvernement bi ci loolu dëkk yooyu la ñu la ñu ciblé leneen li tamit mooy nekk na projet yoo xam ne fourchette bi entre cinq millions la ba cinquante millions loolu aussi ñuy wax ne que rek FONGIP ak ADPME ñu ngi resté disponible pour ñu mën a tàmbale aussi euh, recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy les sénégalais de la diaspora euh, ñi nga xam ne projet bi intéressé na leen leneen li nga xam ne aussi moom laay mujjee bëgg ko rafetlu muy lii ñu def tey ak ADPME ànd ceeg suñuy partenaires dafa wone rek effort yi nga xam ne président la république moom chaque jour da koy dëggal mooy structure yi nga xam ne dañoo bokk secteur nu ñuy def ba mutualiser seen effort pour que au moins ñuy mën di xàccandoo di dóorandoo loolu bu passé aussi ñuy wax ne ko aussi lii day matérialiser encore une fois bi nga xam ne suñuy ministère de tutelle am nañ ko muy le ministère de l'économie ak le ministère du commerce pour xool nan la ñuy impacter positivement li nga xam ni moom mooy condition de vie euh, sénégalais yi sénégalais nag suñ ko waxee ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew aussi ci lañu lañu bokk. 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 mbas mi la ñuy waxtaanee accord de pêche yi tonnu euh, gaz boobee daal di éclaté ak euh, lu jëm ci wàllu gerte gi ci 88 628 98 98. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Mhm. maa ngi ziar bu baax. delloo ziar. waaw bu dee ci wàllu gaz bi kalaate lii lii mbir mi mooy tàmbaleeku liggéey bi ñi nga xamante ne ñoom lañ ko dénk waroon nañ jël seen matukaay parce que li liggéey dara parce que lii mën na doon catastrophe. donc lii warul di leen dal parce que surtout état bi bu fekkee ne dafa am ñu mu ko dénk war na leen topp ñoom ñu defar ko parce que kenn xamul fan la ay bi di yem te am na ñu ko alerté woon ci rajo bi fii en direct depuis jamono yooyu beneen bi ci des mooy gerte bi maa ngi ñaan baykat yi di ñaan it état bi comme que état baa ngi def effort ñu ngi newoon kilo bi juróom fukki dërëm lañ koy jënd dem nañu ba juróom fukk ak juróom-ñaar donc dañu war a jegeyoo baykat yi war nañu xam ne ëllëg ñoom dañu war a participer ci seen réew ñetti dërëm warul warul dox seen diggante ba seen réew di normal usine bu toll ni Sonacos war nañ koy renforcer mu dund ndax dundam da doon dund baykat yi ak dund réew mi ñuy ñaan état bi ñu yërëm baykat yi rongo ñu baykat baaxul ci réew donc ñoom ñaar nañu seet ni ñuy trouvé woo daje ñii ñu ngi def effort ñeneen ñi nañ def effort su boobaa réew mi jëm ci kanam wasalaam ala man ittabal huda jërëjëf Djibi Sow ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Birama Ndiaye. bàcc. yow jaay nga sa gerte. ndax jaay naa sama gerte. Hmm. <laughs> Birama bayoon nga de. bàcc waaw maa maa ngi lay fay. maa ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm. di ñaanal njabootu Seydi El Hadji Malick gépp leen ziar. waaw xam naa nag euh, euh, euh, Birama. Mhm. pour leeral lee xew Ngajaga. Mhm. usine boobu ñu ngi ko fi en mille neuf cent quatre-vingt-seize jamono Abdou Diouf ñu ngi commencé liggéey en mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept ñaar fukki at ak ñetti usine boobu ma nga fa. du lu bees de. Mhm. jëru kenn nekk fi naan waaw. gaz bi gaz bi ñu ngi koy sàcc ñoo ngi koy def nanga du gaz bokkul bokkul ak gaz bi bi bi feeñ bi géej gi de lii 1997 ba léegi ñu ngi koy exploité loolu dañ ko war a leeral loolu moom jàpp naa dafa war a leer mm-hmm. beneen bi topp muy wàllu gerte gi euh, Birama mm-hmm. waa léegi ñu nekk Dakar mm-hmm. bu fekkee amuñu droit wax ci la xew Louga ak la xew Kaolack waaye que ñoom tamit ñeen ne Kaolack ak Louga am nañ droit wax ci feneen ñun ci Sénégal lañ nekk baykat yi daf ñuy concerné ñu engagé man maa ngi maa ngi Dakar maa ngi Kër ma Madar mais tey jii damay jékki-jékki ku mel ne Basiirou Ben ca ca Saalum woo ma ni ma ñun mbay mi kat buñ état defoon ni def nangam ba keneen ak keneen daal di wax loolu bu dee lu ñu war a jàllale lañ jàllal na ko ci kaw ñun ci réew mi lañ bokk ñun duñ ay doxandéem ci réew mi de réew mi ñëpp ñoo ko bokk béykat bi ñu ne war a yërëm loolu ku ne xam na ko léegi nag ku nekk yaa moom sa gerte man daal li may digal ku nekk mooy jaayal loo xamante ni arrangé na la boo liggéey si biir nag lu ñu xam ne loolu la yàlla dogal man daal loolu laa ci xam man du ma ni kenn jaay sa gerte par force du ni kenn téye sa gerte ñoom ñoo doon béy ñoo doon sonn man ñoom jamono yi ñu béy man maa ngi liggéey sama liggéey bu soobee yàlla ñun peu de temps taxaw mooy ñun suñuy mango lañ am su boobaa ñun ñooy seetlu ñun ñoo leen jaayoo yéen ñoo ne moom seen gerte bu la neexee pëtam leen bu la neexee saaf leen ko bu la neexee tege dege leen wasalaam. jërëjëf Bathie Ciss Kër Madaro ñu daal di jël keneen ci 88 628. allo 98 man la aadamee bi maa la lay nuyu di nuyu waa rajo bi yëpp. ñëpp a ma ne. ndogal du tayeef. ndogal du tayeef. teenu gaz bi tàkk accident moo moo amoon. nañ ci sant yàlla bu baax. léegi lépp mel na mu meloon. Sophie Gladima ministre bi yore pétrole ak énergie. Hmm. dem na nemmeeku leen. ndax lépp baax te lépp dina baax. bu soobee yàlla. teewul nag ñoo ngi def ay enquête pour xam lan moo ko waraloon. ñu saafara ko ba dootul am mbas mi nañu ñaan feebar bi gaaw fi jóge deuxième vague bi hmm. xeeñ bi muy xeeñ neexul xabar bi mu àndal jaaxal na nit ñi yokk bi muy yokk saa su ne di faat nit ñi économie bi bu ñu moytu cas communautaire yi wàllante bi dina gën a bari te amuñu moyen sanitaire pour dékku ko ni ko président waxee même dëkk yu mag yi attanuñu ko ñoo ngi masawu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe am ci coono bi muy daj rafet lu seen taxawaay ci xeex jàngoro bi gërëm personnel de santé bi yëpp ak waa Sud FM ci liggéey bu rafet bu am solo bi ngeen di def jëmale ko ci askan bi ñu leen ci gërëm di leen sant mboolem ko am tawat ci Sénégal yàlla na ko yàlla may wér di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëggee eggali réew mi ci lu baax yàlla na ko yàlla eggali ci lu kawe sa njort opposition bi musiba bu am Sénégal dañ ciy kontaan ndax chaise ba ca rek la soxla te du noonu léew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ko rafetal merci. jërëjëf Anam Mendy ca Parcelles nii ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ibrahima waaw Diop. Diop na def. sant bu baax Diop. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñëpp a ngi lay fay. monsieur Birima man de affaire Gadiaga bi ci laay wax nii quoi ak yeneen bon euh, vraiment gaz bi explosé foofu. man dama jàppoon ne sax ñun Sénégal sax exploité wuñu gaz ndekete depuis des années ñi ngi exploité gaz foofu man bi may déggee Clédor Sène di ko wax un dama ne non c'est pas vrai xaw ma ci woon doo xaw ma xaw ma ko woon gëm daal mais bi li amee ci laay xam ne ndekete depuis des années ñi ngi exploité gaz foofu li ma ci metti nag mooy waa zone boobu waa Ngadiaga la région de Thiès département ñi bokk Thiès région de Thiès yëpp gisuñu seen bopp ci ressources naturelles yi nga xam ne mi ngi feeñ foofu muy muy muy muy phosphate yi di zircon yi ah di lépp li nga xamante ne rek yàlla wërsëgal ñu ko foofu te waa zone boobu gisuñu seen bopp man loolu rek moo ma ci metti depuis combien d'années ñu ngi exploité gaz bi te boo demee ci dëkk yooyu ñoo gën a pauvre fii gisuñu seen bopp ci ci emploi ba pare feebar ya fay génn ñu ngi leen koy jox vraiment loolu lañ ci am ñuy Sénégal amuñ ci dara ñoom amuñ ci dara man daal loolu moom ma ci gën a metti dafa mel ne ñun xaw moo ñu dal ñun Sénégal daal vraiment li ñu am ci ay ressources naturelles li ñu yoo xamante ne bu fekkonte ne am nañ yoo xamante ne njiit yu baax lañu kon wax dëgg yàlla heure bii Sénégal dina gis boppam ci lu bari suñu géej gis nga problème mu géej gis nga ko ICS boobu nekk nga xamante ne ICS moo doon moo doon fleuron de l'Afrique de l'Ouest jaay nañ ko moo tax man maa ngi wax waa Thiès ak waa région de Thiès département yi yépp ñu fexe ba def benn collectif suñu ressources naturelles yooyu nga xamante ne suñu usine boobu muy ICS ñu fexe nuñ ko nationalisé waat fexe ba zircon yeeg yooyu phosphate yi nga xam ne mu fay génnee ñu fexe nuñ ko nationalisé ba Sénégal yi gis ci seen bopp parce que yàlla mel ni ñu xéewal yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu tegee lépp ci yoon Sénégal yi daañu ci gis seen bopp du ñu gël gaal yi di dee loolu nag maa ngi ñaan waa Thiès ak département bi yépp ñu def ay euh, collectif même doomu sëñ Mbaye Soumane si loolu na ko wax vraiment liir gën na foofu ci zone boobu ci richesse ba pare ñu pauvre seen hôpital bi ñu dee si am dara loolu lu ñaaw la. jërëjëf euh, ñu jub Italie jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum allo. waaleykum salaam. waaw. waaye nag na nga def. sant bu baax alhamdulilah. Mamadou Diagne. Mamadou. Diagne. di wootee fan. wootee Dakar. aha Diagne waa acca bisimilah. Dacca Fall ma ngeen def. sant alhamdulilah. man wax ko xalaat ngeen wax. waaw mais daa am thème de. waaw waaw waaye gerte gi ah, ci la bokk. waaw ci la bokk waaw. man indi solution laa bëgg def man. acca waaw. xam nga am na yaakaar naa euh, am na waa wax ci rajo RTS ne diisoo. ngir béykat yi diisoo ak sàmmkat yi diisoo ak nappkat yi. Hmm. diisoo hmm. ma ne. waaw diggante gerte euh, yi ak nguur gi ak euh, société yi liggéey ci euh, déwlin yi. Hmm. solution bi nii lañ mën a def ci la ma gis gis mooy. gerte kenn mënu wax ku gis cent franc di di jaay soixante quinze loolu kenn mënu ko wax nii. yaa ngi dégg. maa ngi dégg waaw. mais aussi état amul droit. li nga xam ne ko produire nga dem ba jeexal ko tàkk jaay ko bitim réew sa waa réew mënuñu ko am loolu itam état amu ci droit kon mu ñaari affaire yoo xam ne neexul rek solution nag mooy lañ def ca soble ba nga xam ne buñ béyee soble ba soble ñor kenn dootul indi soble en tant que suñu soble jeexul nañu fexe nguur gi ak béykat yi ak euh, évaluer yi ñu toog waxtaan waxtaan bi mooy ñu seet ban prix lañ mën a jindi gerte ñu ne gerte gi dootul genn Sénégal parce que Sénégal lu mu consommé ca na bi nga xam ne daanaka sax mënuñu ko produire kon gerte gi lan la dañ ko war a jël produire ko ci réew mi jaay déwlin bi ci réew mi ñu wax béykat yi nag ne prix bii bu ñu ko jëndee par exemple bu ñu jëndee gerte ñun déwlin bi ñu ngi ko mën a jaay litre bi 1200 hmm. en tant que déwlin boobu jeexul duñ kenn de importe déwlin déwlin bi ngeen di jënd force su ngeen ñu ko jaay kilo 500 suñu produire déwlin bi dañ koy jaay 1500 ñu waxtaan bi juboo it lan lañ mën a jëf parce que aussi mënuñoo fexe di politique politicienne di neexal ay béykat di rey sa société sa société aussi mënoo koo neexal ba rey ay béykat. jërëjëf Mamadou Diagne ci Ndakaaru ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33. asalaamaaleykum. aleykum salaam. waa suñu Birama. Seydou Jamil Faye de Simnang. Seydou Jamil waa. mbaa jàmm rek alhamdulilah. jàmm fa bay alhamdulilah. waa Diop moom dama koy wax ne ko na muñ rek na xam nga problème mu Sénégal mooy ay liggéeykat lañ amut. njiit yi ñuy fal su fekkee ñoom lañu yaakaar. ñu toppatool ñu suñu géej gi topp tool ñu suuf si li ci nekk ci wàllu pétrole ak ya ca aju. bu dee ñoom lañu yaakaar fii ba deux mille cent nangam. nañ xam ne alaa xaal dara du sotti. parce que liggéey taxu leen a jóg amuñu xam-xam bi. ki ci gën a doy waar nag mooy kii ñu mujjee am ni muy président Macky président Macky ak ñi mu àndal ñi moom xam nga ni ma leen jàppee maanaa nit koo xam ne dafa gis jigéen rek mu rafet mu takk ko te xoolut ji ko ja mu dem ba ca biir mu commencé caa gis ay mbir yoo xam ne kenn xamut mu naan ah fa ma ko tegoon nangam nangam président Macky xale la après indépendance la judd ci la gane àdduna kon jàpp naa ne tey moo waroon a gën a mën a xam réew mi ak ñun liñ daj ak président Macky fi mu jaar fi mu jaar ci juddoo fi yaroo fi xam jafe-jafe yi ak yi ñu njiit yi daan tëj kon jàpp naa ne tey waruñu woon a añalee lii nga xam ne moom la ñu añalee tey gis nga man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi loolu dafa am solo loolu nag damay wax ne même lii ñuy wax nii di kaas bu ñu gisee leen lu met ñuy kaas nañ jàpp ne tey fi mu gën a amee solo mooy lii nga xam ne moom la président di teg nit ñi jamono ba mu toogee ba léegi loolee tey ci la nit ñi a a mën a taxaw ko mu jaar ci yoon wi parce que buñ ko gàggante woon rek mu jaar ci yoon wi mais dafa xamut dafa nangoo nekk waawu xumru mooy topp si ginnaaw am réew moo xam ne seen ngëm-ngëmu bopp lañ yor am seen fu lay fayda am seen léppi bopp daa war na du mooy ñooñ nag yor suñu jikkooy bopp ak li ñu bëgg mu koy doxal pétrole bi li ci ne ñun dañu koo soxla xanaa ku xaal gis nga ngar daanoo nañ ko téye nañ ko lañ lañ ca soxla woon ñu ngi ko cay def benn bi mooy wàllu covid bi xanaa ku xaal li ñu ciy wax rek di ñaan yàlla ñoom daal comme seen yëfa rek mi ngi noonu waaye lu ci mën di am ñun daal nañ sant yàlla te xam ne nañ daan dundee noonu lañ continuer di dundee. jërëjëf Seydi Djamil Faye ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo. salaamaaleykum. El Hadj Birama. waaw. kii El Hadj Xaaye Gueye la. El Hadj Xaaye waaw. maa ngi lay ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay. di nuyu Daaru Gueye ak Làkk ak Sancib si nag dëkk yi leen wër. Mm-hmm. Euh, man de ci mbirum kii bi laay wax euh, usine bi ak gerte gi. bi gaz bee mm-hmm. usine gaz bi daal na sénégalais yëpp xam ni ñi nekk ci réew mi xam ni moom usine bi daw euh, euh, bokkul ci gaz bi ñu tàmbali jaay di ko importé ndax am na ñoo xam nekkuñ ci réew mi te xamuñu réew mi dañuy war seen téléphone di woote lu xam ci réew mi réseaux sociaux leen ko wax xamuñu sax fu dara nekk ak fu dara nekkul ñi déglu rajo bi daal nañ xam ne usine bi moom 96 lañ ko samp 97 tàmbali naa def lii muy def waaye bokkul ci gaz bi ñuy sañ Sénégal beneen benn mbirum gerte gi li ma xalaat bi ma dégg mu jaañ faa da wax ko na ko ci ministre appuyé président appuyé ko ci def ko. mooy bu ëllëgee Sonacos wut ay tracteur wut soo fa mbay mbayam jënd gerte jël gerte boppam def ci bu boobaa ab Chinois ak anglais ko marocain bu ñu ñëwee du jotee kenn dara waaye mbirum gerte moom ku ci wax dara président Macky Sall tooñ ko ko ndax bi muy ñëw fii ci réew mi jëlal na usine bi Sonacos yi nekk Sénégal yëpp ak raay bi jaay ko Abbas Sobel xaritu Karim Wade ci ñeenti milliards te usine bi dong jar na téeméeri milliards mujj di jaay yëpp bi mu la ko doo ko nanguwaat delloo ko xaalis ba ban usine Sonacos tàmbali liggéey ba fi mu ne commerçant buy importer diwlin bu mu di doon dañ laa da ngay jënd quantité bu toll nangam Sonacos doo koo jël loolu ñu ñu ko gagale nag dinañ war a gagale ñi jëndi gerte kii di ko yóbbu président Macky Sall daal na fexe ba bu sëllu yooyu bu giir dem ak neen te bu meew tuuru maanaam ñiy jaay gerte gi nañ ko jaay waaye usine bi bu mu ko ñàkk ndax usine bi ay doomi Sénégal ñoo fi nekk te boo jëlee gerte gu baax yóbbu ko bitim réew su soxlaatoo jiw dinañ jafe loolu moom maa ngi ko dégg bu baax a baax mu bàyyi ci xel bu sell yooyu bu giir dem ak nen te bu meew tuuru kon moom na ko xabe doom beneen bi euh, may jeexale mooy mbas mi jógee gu fi na gars yi takk masque yi respecté mesures barrières yi ndax deuxième vague bi mi ngi ñëw ndax Sénégal gën a euh, xeex bi aman ba jël premier place bi mu jëlaat ko te yi kanam mu gën koo jël yàlla def euh, wéral ñëpp te kenn bañ cee tëdd wasalaam jërëjëf Alaaji Xaya Gueye Thiaroye sur Mer ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum. waaw Adama. allo. Birama. waaw. na nga def. nga am na ku wax léegi wax boobu important gis nga am dëkk mbirum gerte gi. Mhm. gerte gi mënuñu ko bàyyi mu mu génn réew bi tey loolu moom bu ko kenn xalaat ak li ma di xaw loolu du mën nekk moom. bon mu def maintenant problème mu ndajaga bi ah, ci bi gaz bi tàkkee. waaw. gis nga am réew boo ko nekkee da ngay di xam ressources yi nekk ci réew ak kañ la ko commencé planté wu ak lan ci essayé génn fan la nekk fan la nekk. gis nga boo ñëwee si Bokotane ñu tey di gën a jëm ah, nañu ko jëm boo boo bëttee nii jaar guddi ah, kër sa ah, àll bi génn Kounoul diggante Kounoul ak si Bokotane mais mais wàññi gas yaa ngi foofu foofu yaakaar ngeen si fàtte ban année la mbir mi bu ko expliqué bu ko kenn attribué kenn Abdou Diouf fi nekkoon Abdoulaye Wade Macky Sall ñoom ñëpp ku nekk ñeneen ko déglu si moom mu nga tax ko si liggéey réew mi dong moo tax ñu di ko def yooyu nag gis nga boo yàggee liggéey ay effet négatif ak yu ak yu positif moo fa nekk soo utile moom am am na catastrophe dem tamit wuy ñu ñëpp dem am na loo xam day lore dañ naan ko yàlla te ne ah, a hmm. loolu dara gis nga Adama Sénégal Amérique ak États-Unis foofu la jëm gis nga tey richesse bi dëkk bu la plus maanaam région boobu moo gën a wala kan ci ci moo gën a wala kaana ba jamono jamono yi passé ñaa ngi ñaa di ñoo gën a wala kaana te fii am gox dongay Sénégal ñoo xam ne gaz baa ngi fay leneen mais foo dem loolu loolu nga gaz bi mu ngi koy jóg boo nekkee ji biir da ngay gëstu mais ñu daal di jël keneen mbas mi lañuy ñuy waxtaanee de pêche yi ak it coowal explosion boobu asalaamaaleykum. allo. aha bi. nootu dafay woote. naka. Muxtaar Ndaw Muxtaar Ndaw di wootee fan waaw maa waaw waaw yow la déglu waaw gerte gi la ñuy waaw da déglu ci téléphone bi bàyyi rajo bi waaw hmm. mhm. ah. Muxtaar waaw waaw ah, déglu ci téléphone bi nga bàyyi rajo bi waaw fee rajo bi waaw ayca bisimilah. gerte gi léegi moom. Mhm. wax dëgg war nañu jàppale béykat yi. Mhm. ndax xam nañ ci mbéy mi lool. kon buñ demee ba tàmbali woon nañ ñu defal juróom benn ko rek. Mhm. su ko defee ñu mën ci jël liñ war a xam. nag wax dëgg président na gerte kon ñu ñaan yàlla ko daal ñu ñu fexe ji ñu jubóo béykat yi leen ci kuréel ba mu xàgg sama baax. alhamdulilah wa salaam. jërëjëf. jërëjëf euh, Mokhtar Ndaw woote foofee ca département bu Malem Odar ñu daal di ko jaajëfal jël keneen. salaamaaleykum waaleykum waaw góor a. Kër mhm. di wax ni <clears throat> mbas mi moom yàlla na ko fi yàlla jëlee ak jàmm yàlla na ko fi yàlla ji yàlla ak jàmm yaakaar naa coobare yàlla rek la nekk. Mhm. waaw waaye nag yàlla yàlla bay si tool comme dafa am nañ mooy mooy moo ak ak fajoo dañoo war kon nañu fegu. fago ga nag mooy takk masque mooy li ci gën a woyof waaw amaa nag ñuy yàgg ci yeneen yi moom yaakaar naa loolu da koy day gën a yomb takk masque yi ñu ci góorgóorlu te xam ne li tax ñu koy takk moom pour aar pour aar suñu bopp la rek waaw euh, yenn yàqkat yi nag ak yenn ko tojkati bopp yi moom li ñuy wax moom jërut bi dégg ndax yaakaar naa mbas mi moom mbas du mbasum France wala mbasum Sénégal wala feneen ci Afrique déedéet àdduna bépp la daj lu daj àdduna nag moom naa ko ñenn ñi moom mooy mooy fa ñuy waxee rek fi ñuy waxee rek ñoom daal seen bopp tax ñuy wax ak seen leader ku ku farul fa ñu far wala nga féete fa ñu féete doo def lu baax doo ko wax. gouvernement bi yaakaar naa ni li mu li li président Macky Sall li mu liggéey ci réew mi hmm, li mu liggéey ci réew mi yaakaar naa jombante nag jërëjëf Gora Baye Fall Kër Sega ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. vraiment. waaw. waaw man la Mamadou Medor di la nuyu. Medor waaw ñëpp ci defee waaw ah, di si Gora daane rek Gora Baye Fall moom li mu wax am na solo parce moom ci naan la sangul te la bëgg. wax dëgg yàlla ah, ki nga xamante ni bëggul nga feebar bëggul nga xiif bëggul nga mar bëggul nga rafle ah, wax dëgg yàlla am kooku du la nga am benn jafe ndax. feebar bi moom ku ne xam na ne gouvernement bi taxaw na ci am na taxawaay yu mu ci jël président mag Sall moom wax dëgg yàlla am lépp lu nga xam luy luy luy jafe-jafe askan wi moom bëggu ko bëggul dara kenn am benn problème. parce que ba gis nga ndimbal dañu na sa fekk loxol borom problème mu feebaru bi nga xamante dañ koy wax mu lëmbi àdduna bi yëpp buñ ne Sénégal rek ndax euh, nekk na feebaru mbas mi feebaru coronavirus lañ koy wax tubaab yi waaye damay wax ne rek ne ñun nañu gën di fagaru rek fagaru daal moo gën faju tey déglu digle docteur li nga xamante ne moo ñuy moo ñuy man a muccal ci feebar bi loolu loolu yomb na masque ak moom masque lu am solo la masque mooy kaala rek na kaala woowu ah yor sa kurus yi wurda di dem kenn du la xamal dara parce que lépp loo gis rek dafay nekk lu nga xamante ne bii ay nataal yoo xam ne sunu borom bàyyil nañu ko euh, masque dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la bu njëkkoon lépp boo xoolee euh, feebar bi dafa nekk kémtaan bu ci ànd sax ndax tubaab bi lépp lu nga xam dañ ko dañu ko doon bañal ñoom ñii ñi koy nangul parce que feebar bi dafa feebar nga xamante ne bii amul ay eh, jegewaantoo amul ay lépp loo xamante ne bi loolu ay mën a moytu feebar bi foog ñuy jëfandikoo masque yi ak sel bi di soriwante suuf yi loolu dafa ci am solo parce que nit ki mën na jógee fu sori ñëw rek alors dañ nga ko gis rek alors nuyoo nuyoo tubaab nuyoo jàppanteeg yooyu mën na mën na ñàkk ndax eh, wax dëgg yàlla xam nañ ne feebar bi nekk na feebar bu nga xam dafa lëmbi àdduna bi yëpp waaye nag gouvernement bi jël na ci ay matuwaay yoo lépp lu mu mën def na ko lépp luy wareefam def na ko askan nag ñoom ñoo war a xam ne wax dëgg yàlla am na ki naan la métul euh, jaaral nii li boo ko defee dalay indil problème loolu nañu xam nañu sant gouvernement ba sant président Macky Sall mi nga te ne bii wax dëgg yàlla am taxawu na Sénégal yi guddeeg bëccëg jërëjëf. jërëjëf Medor ñu daal di ko sant gërëm ko jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. noonu dalu laay noonu dalu laay. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birame Ndiaye. waaw kooku. si Sylla Guédiawaye moo lay nuyu bu baax. Sylla waxal ñu sa ginnaaw ne yaa mujj. waaw kon gars yi leen. waaw na yàlla def jàmm si réew mi. man waaw Sénégal ba mu sosoo ba tey ñu ngi door am nguur gu gën a tële si àddina. bor baykat yi. bu leen hmm. kenn ndax. sous région bi kenn du jaay mooy de cinq cent francs sous région bi daal kenn du jaay sa gerte moins de cinq cent francs bala maa dee ñu ne président moo fi indi gerte bi à deux cent cinquante mais loolu gàcce la sax. mais gerte ba muy jar dërëm dafa amoon valeur ba muy jar fukki dërëm dafa amoon valeur ba muy jar fanweer dafa amoon valeur mais da ngeen bëgg ñu resté foofu rek day avancé heure bi war naa fekk ñu dépasse sax 500 francs dem ci 1000 francs wala yu demee noonu mais naan moo fi indi 250 moo di indi 300 lu tax bi bi ñu defee 250 dem ba mënuñu ko jënd euh, waa Sonacos ne nañ yokk dañ ko def 280 xam nga wan euh, dañ ko béykat yi téye leen seen gerte jaay ko prix bu baax. mu jariñ leen ndax ñoom duñ leen jox jiw bu baax duñ leen jox engrais bu baax te yooyu buñ leen ko jox may ñu leen ko saraxul leen ko duñ leen koo jaay voilà bu ñu ko ñu bëgg jël jiw te ñuy gën a seeral diw bi gën a yombal gerte gi buñ ko jël si yéen nit ñi ndax ndax xew yi na fi te itamit li tax ma ne li ñoo gën a tële si réew mi xoolal li xew si mbëkk mi ñaata centaine de sénégalais ñoo ci dee déggoo benn yoon ñu metti du ko te loolu bu amoon si beneen réew kon réew ma def nañ ay deuil national yu mag a mag a mag xoola ma loolu loolu mooy man faalewuma suma askan askan bi moom la état bi déglu jooy jooyi askan bi waaye duñ ko def lii xew tey euh, euh, war na kenn war naa gën a sax amuñu information bu ñuy am si état bi état bi dafay noppi bugguñoo noot bu dara xewee dañuy génn joxe information wane lii tax lii tax lii tax waaye lii fii di waxal état bi mënuñoo rag état bi ba mu sedd naan nekkoon Euh, usine ba nekkoon na fi deux mille yooyu yëpp xam nañ ko mais ku nekk boo nekkee président mun sa nguur yaa yore réew mi responsabilité bi ci yow la ña dem dem nañ boo deful say warif dañ la koy wax. jërëjëf si Sylla Guédiawaye ci moom la yekkatee yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu wooteeg ñu jotuta woote ñu doon teewlu yëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant Sud Nutrition moo ñu wutu ci toogu gi ci kanam tuuti bu ca ndoppee itam soxna Marie Rose Ndiaye ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon. gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féetoon ci xarala gi ñu leen di ñaanal panaanub jàmm